asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi nga xam ne yéen a ngi ci hurrasul irada yëpp ñoo ngi leen di nuyu di nuyu mbokk yi nekk ci ahlul bayti tv di nuyu mbokk yi nekk ci MTV di nuyu itam mbooleem mbokk yi nga xam ne ñu ngi may déglu ak fu ñu may déggee ci addina bi ah, tey dañoo dellusiwaat ci xibaar yi alamul islaami yañ leen daan defal Euh, ndax nit ñi jamono ju nekk ñu ngi may woo du France du Italie du Amérique fu nekk lañ may woo di ma wax ne xibaar yi nga xam ne moom nga daan def ci aalamul islaam yi ah, ñun moom la ñuy soxla ndax ah, ni ngay xamee diggante yi ak ni ngay xamee histoire yi jiitu woon ak niñ leen di leeralee maanaam géographiquement ak politique beeg yooyu yëpp loolu moom moom nee moo leen ci neex waaw waaye man itam damay eh, damay faral di may rek cër yeneen yeneen mbooloo yi damay may cër ay Walfajri damay may cër ay rajo Youssou Ndour ñoom ñoom Bougane géey ay DSTV rajo bu mag bi ci Ndakaaru ndax ñoom itam ñoo daan joxe xibaar bu njëkk am na nooy nooy jëli sa sa sa intention ci xew-xewi àddina bi completement Euh, euh, di di di di ko gëstu te boole ko xam nag histoire xam géographique euh, say wax mooy gën a leer ndax journaliste mën naa nettali ay xew-xew te du xam placement yi xew-xew yi mën naa nettali xew-xew du xam la jiitu woon xew-xew ya mën naa nettali xew-xew du xam li waral xew-xew yi xew ndax fekk na loola doonul spécialiste am du ab historien jàngu géographique yu demee noonu Eh, boo jàngee histoire ak géographie nag boo dee wax ci boo dee wax journal da day yomb ndax jote bu nekk dangay wax la jiitu jote baag la ko waral ak la toxoon mu am ndax loola loola histoire lay doon journaliste bu yàgg nag ci ci dangay da ngay mujj nekk ab histoire ci li nga fekkee kon léegi dañuy ñëw ak yéen ci axbaarul aalam al islami waaw danañ leen dikkal daanañ leen dikkal ci axbaarul aalam al islami Euh, tey nag euh, dañuy dikk ak ci xibaar yi nga xam ne moo moo moo moo ubale jamono surtout fii ci Afrique muy maa bay na Mali wa Russia wa Korea Somalia wa Turkiya wa Siin wa CEDEAO wa France euh, loolu laay njëkkee tey bala maa jàll ci yeneen ci des muy Mali ak Russie ak Corée du Nord ak Turquie ak Siin xam naa su ma waxee loolu nit ñi dañu naan waaw lu ustaas bi wax nii lan la problème mu Mali lu ci lu ci Russie doon lu ci Corée du Nord doon lan la ci siin doon lan la ci Turquie doon su ma yeggalee da ngeen xam lan moo tax ma ne diggante Mali ak Russie ak Corée du Nord ak Turquie ak Chine ak CEDEAO ak réewu CEDEAO ak France ndax ñaari cal yooyu moo am dafa am ñaari cal yoo xam ne àddina bi da ko cal ci côté sawu bi te ñu bari xamuñu ko xam nga nun li ñu féetewoo rek mooy am am koom mu ne ci suñ biir suuf nuy wër ku nu nax jël ko kenn ku nekk di la won ne soo nangoo ma nax la danaa la nax mosal la tuuti kii ne man bu ma la dee nax dinaa la mosal lu gën a bari kii ne man bu ma la naxee maa lay gën a ba dinaa la bu ma bu ma dee tibb la ma fay bàyyee gën a bari bu ko defee nag ngay ngay wër na ki nar a xooñ ki nar a tibb ndab ki nar a yàq ci li ba wàcc fa xooñ ci kese comme le France di def ndax France moom day yekk ci li ba wàcc fa xooñ ci kese waaye li am njariñ ci suufu si réew yi africain yëpp da koy waa wàbbi yóbbu ko lu mel ni Chine itam da day wax ne waaw dinaa yekk yóbbu waaye eh, dinaa yàq waaye nag dinaa ci bàyyi tuuti loo loo loo loo loo mos eh, moom moom Union soviétique def danaa yàq yóbbu waaye dinaa la bàyyi tuuti loo mos waaw bu dee cricket nag danaan bay na bay na da nga mos mos mos mos sa morom mos selu du yooyu gidd bu ngeen ndax moom ab jullit la te itam ñi mu koy seqal ay réew jullit lañ loolu politique gu bi moo ñu problème bi am ci politique gu euh, jokkaloo bi ndax li politique gu jokkaloo bi li ko yàq ba ab xeex di am politique bi moo ko moo ko indi te nun féete woowun ci lu nuy bu nu mun te ñàkk naxit nan nu seet ku nu gën a yërëm waaye nun Afrique moom ci ay nax lañ dëkk loolu mooy li ma li may la waxtaan wi bala maa dem léegi nag Mali dafa ànd ak Russie ak Corée du Nord ak Turquie ak Chine mhm. na toog xaar ma Mali ak Corée du Nord ak Chine France ànd ak CEDEAO eh, Mali nekk ci diggante bi waaw CEDEAO nag mooy ñi nga xam ne dañoo lëkkaloo raw buum tax ci seen boli jox tubaab bi ne ko yaani woo mat yaanu doy fon lu joxoñ fa la ñuy jaar loolu wax ñu def ko loolu tere ñu bàyyi ko yaay suñu yaakaar yi tey ak ëllëg loolu mooy CEDEAO ñu dem ba ci biir Mali di xëcc buum bëgg a dindi ko ci baatam Guinée di xëcc buum bëgg dindi ko ci baatam ñi des nag ci biir jaami France yooyu ñoom ñoo ngi def ak kal di leen làng-làngal di wax ne du ngeen génn gétt gi waaw français sunu sàmm te bukk yi bari na ci àll bi kon du ngeen gétt génn gétt gi léegi nag kii moom Eh, Mali moom ma nga naan man France sàmmatuma damay génn damay génne sama bopp dem seeti beneen sàmm bu ma sàmm léegi waaye nag nun nun dañuy wër ko nu sàmm rek waaye bu nu sàmmul dana nuur ñun africain yi loolu ca lañ ca la ñu jamono ji ñu nekk nii France maanaam réewu occidentaux yi dañuy bëgg di jël njariñ ci réew yi nga xam ne ay réew yu néew doole lañu bu fekkee réew mu mel ni Sénégal la nga xam ne moom amul sëfal amul si pil pël bu màggat la ci witnde nañ màngi ci àll bi eeyoo nañ ñibbi jolof eeyoo moom da ci moom am du am problème Sénégal moom fekk mi ngi bàyyee boppam France na yàcc ne yes rang rek lu France bëgg def ko ci moom jàmm fi am euh, léegi nag Mali moom boo gisee li tax gars yi tàll li bi rey Kadhafi dugal fa ay armée yu dul jeex ñu ne ci la ñu yem ñu tasaare rébellion gi condi conduire leen jëmale Mali dañoo xam ne Mali moom day réew moo xam ne am na uranium am na pétrole am na or am na leneen te du def ni Sénégal rek na yàcc rek ñuy war di dawal mu ne mu ne yi ngaaral loolu moom Mali du ko def waaw Sénégal ni mu mel ni mel ni mburu ci mburu mu fanaan ci moom Mali du ko nangoo def Sénégal mi nangoo nooy moom ah, nga xam ne ba tubaab bi ñëwee Saloum di xeex ak ñoom euh, dafa yónnee arme bi Saloum saalum yooyu ya fa nekkoon ci jooju jamono daje daje ah du ma wax sax loolu bàyyi naa loolu du ma ko nettali waaw ndax dañ dañ dañ dañoo yónnee euh, niw ak ak sunguf bu ñu boole ko jaxase tubaab bi yëgal ne qu'est-ce que ñu ne ko nii wëg singuf mu mas ne ah lii de nooy na ñu ne ko nooyee na nii mu ne non non nooye gu leen fa mel nii ndax mbuus di nooy te wullee su ko balaa mbuusoone dañ ko wulli moom dañ ñun dañoo wulli maanaam dañoo wulli France dañoo wulli ba fi mu ne nii ñoo war a niw ak soow moo tax duñ am ak ñoom problème Mali gi nga xam ne nag moom dañ ko wulli wulli bu dene du nooy moom dañ ko bëgg a créer ay problème yi ko mën a wullee ni koy ni koy créer ay problème mooy dañoo daal di orienté rébellion yi nekkoon euh, euh, euh, libi bi nga xamee ne Xadaafi bi nekkoon yaakaari Afrique ton bañ ñi di ko xeex guddi ak bëccëg muy bañ ba ñu xeeree ko Xadaafi dee na tasaare nañ foofa léegi foofu waxatuñ ko léegi ñu ne Mali ñoo Mali moo ci topp Mali am na désert bu ne yambalang boo xam ne kenn xamul nu mu yem manees na faa nëbb ay bandi yu fay nëbbatu ba noppi nag wëlbatiku tere leen faa dem ndax xam nga fi ñu gaawo ak fii fi rébellion bi nekk France daf faa wàcc tere fa Mali ah, waaw léegi yow man am naa ab noonu di xeex ak moom yaay sama grand frère man a grand kaay dimbali ma nga ñëw dàq ma ni ma bu may ger doo ko fekk si yoon bi ci ne te fi ngeen di géré sama intérêt fi ne euh, te te te du ma fi ne loolu kay mooy wàcc ma wàcc ma wàcc ma may sàcc di dem léegi gaaw ak li ko wër jëm ci biir désert bi foofu la rébellion bi nekk bi France wàccee Mali dafa dina dàq ne moom personnellement mooy guerre guerre bi te soldat yi mari di ko fekkee te foofa la uranium ba nekk est-ce que loolu dal nam xel lu dem xel kon indil naa la aw sambal wula la jël woo mënute di jënti taaj ko fi ëpp alal ci sa réew maa lay régler sa problème boobu waaye maa ñi la ko teg ñoo koy siq waaye bu ma koy régler yow doo ko fekkee te ci kaw nag ay or lañuy ñuy daw ak ay manganèse ak ay ay ak i uranium Euh, ci ci ci suuf soosu la ñuy daw ci la ñuy xeexee yoraale suñuy machine ak suñuy caterpillar ak lu nekk waaye nag yow bu may xeexee gars yi yow yow doo ko doo ko fekkee est-ce que loolu wóor na xam nga loolu léegi nag Malika moom di def loolu munu munu munu mënoo ñëw ne dag may dimbale bëgg fi am ay ati ati ati at di lijjanti problème bu tee lijjantiku te yow bàgg baa nga lëjee fa lëndëm nga nekk te foofa yow da nga koy lijjanti yaag ñooña te man boo koy lijjanti man du ma ko fekk da nga may dàq te te ci sama réew la nekk naka ngay ñëwee ci réew fekk di guerre ak ay rebel nga ne da nga leen di dim da ngay dimbale waa réew ma wàcc ca teene ba gën a am koom-koom ci réew ma ne da nga fay xeex ak rebel yi te waa réew ma doon xeex ak rebel yi ba wala wal ak wall duñ ko fekkee est loolu doy na leen loolu doyul kenn problème la France moo créé Mali problème samp problème bi fa koom ma ëpp ci Mali te gën a yéeg ci biir àll ba ne moo résoudre problème bi te waa Mali duñ ko fekkee kon balaa dàq rébellion yi dafa gox dafa dafa roñ ressource ba ci biir suuf sa ba mu jax tàkk liñ doon def Congo française taalal ko guerre to américain topp ci gannaaw di sàcc jama ak or loolu la tubaab bi bëgg def ci biir Afrique réew moo xam ne nooyoo nepp mel ni Sénégal gii nga xam ne amul sëfër amul si lu France wax mu ne waaw réew mu melul noonu mu ci nekk danañ la créer problème sampal la ay rébellion taale ko foog koom-koom mu ëpp daqale na la buñ koy regle doo ko fekkee buñ ko balañ koo réglé buub la fa nekkoon ba noppi sa problème di a jax ñoo ca la fa xottu suufu amul njëriñ loolu nag Mali du ci d'accord tey Mali du ci d'accord ëllëg ndax Mali ñu doomu jaam te du duñu dof ay nit njaay lañu loolu moo indi li gën a bi loolu la woo na grand rek muy France def na fay at munu ca dara mu ne ko léegi grand nan ànd ci xeex bi mu ne non non suma ma koy problème bi su ma koy réglé yow doo ñëw gaawoo doo ko fekkee Mali mu ne xaaral ginnaaw man aw ma doole te kii damaa doon xeex bëgguma dimbale ma mu ne def may dimbale du ma fekkee dimbal li fa muy dim fa may sama tànk du fa jam naa dem seeti kenn ko mën a àndal mu dimbale ma daal di dem te Union soviétique te Union soviétique du tey Union soviétique du tey de Union ba Mali di doon Mali ku njëkk beroon seen ab xaalis mook Chine ak Turquie ña doon jàppale Mali ca jooja jamono yetti réew yooyu ca lañ bokkoon ginnaaw nag dañoo amoon seen soppay démb mun ñu di ko dimbale ci siinam noonu ñu dem ba yàgg noonu ba di France soppali ko ab soppe ne ko léegi noonoo tumala dañuy soppoo dañuy soppante ma ak yow waaye ñi nga soppantewul démb ñëpp da leen di bàyyi Mali bàyyi xaritam yëpp ngir France te France jëru ko Mali day delluwaat ca xaritam yu njëkk ya mooy fan mooy Union soviétique ak ak Turquie loolu mooy problème bi France nag ne gar ci bakkanam ne doo dellu ci sa xarit yu njëkk ya mukk maa lay continuer yore di la womat fu ma neex jaare la lu ma neex def ci yow Mali ni du ma def loolu man kay ginnaaw dem naa dem jamono yu yi jamono yi Modibo Keïta maa ngi àndoon ak ñoom nga fexe ba indi fi Moussa Traoré ah bu nga fi indi Moussa Traoré nga jàpp Modibo Keïta ci kaso ba ah jaarale ko ci tëj ko ca kasa ba te moo di bokkay te moom fexe woon na ba am kër ak xaalisu boppam ànd ak Chine ànd ak Turquie ànd ak Russie naroon a dem bàyyi gaa yi nga yób nga yow nga yóbbu nga dugal ko ci mbaal ci mbaal mi nga ko doo génn waaw delloo na jamono Moussa Traoré ba léegi déggoonu dox déew déew waali dund dem tool waali déew ñu bokk ci siggi mooy waali di sukuraat maam waali du liggéey kenn du liggéey loolu mun ta nekk Mali na defu loolu <laughs> léegi léegi moom day dellu ca fa mu nekkoon bu njëkk <coughs> problème bi nga xam ne moo moo indi moo moo tax Mali mel ni mu mel mooy rébellion bi rébellion bi ba mu fi ñëwee ak léegi France ne mooy lijjanti problème bi bépp président bu yéeg ci Mali te problème boobu lijjantikuwul bu yàggee gars yi dañuy maar te bu ñu maaree ak coono bi ñu nekkee dañuy mujj wàcce la wàccee kenn wàcceeti kenn kooka foofu ne dee <coughs> léegi nag loolu am na Mali nee na moom dootu yem ci France day dem ca Union dem na ci union soviétique union soviétique dafa am armée bu mel ni armée américain marines américain yi ngeen di gis ngeen yaakaar ne mooy armée bi Amérique yaakaar ci ab guerre déedéet armée boobu ay makkisaar ki bandi yuñ dajale dong la ay ay yahuud ngi ci seen biir ay juif ngi ci seen biir ay indien ngi ci seen biir ay chinois ngi ci seen biir façon askan yëpp lañ fa dajale mooy armée bi nga xam ne moom la ñuy dugal ci biir àddina bi ñi tajaxe ñi la itam am nañ Wagner Wagner itam noonu la mel Wagner armée la boo xam ne Kazakhstan ña nga ca biir Tajikistan ña nga ca biir Armenia ña nga ca biir Russie al bayda mi ngi ci biir Russie ci boppam mi ngi ci biir Xawqaas mi ngi ci biir Ukraine ñu ngi ci nekk foofu yépp bandi yi maanaam seen soldaar yu libre yi ak seen bandi seen waga ak seen waga yi nga xam ne ay bandi la ñu ñu leen la jël vite nga xam ne dañ leen daan jàppite ci kaso bi di ci sonn ñoom lañ defal nag lu ñuy wax Wagner naar moom dañ leen a na bañ doon ay soldats comme soldats yi Union soviétique fu problème am ci àddina bi Union soviétique yóbbu leen fa waaye nag ay mercenaires lañ yoo xam ne la ñuy la ñuy fayeku ah, euh, euh, caisse Union soviétique moo leen koy fay waaye fan la ko union soviétique bi jëlee <clears throat> ci xaalisi boppam kon fan la koy jëlee fan yi xeexee am na lu fa ne waaw foofu la loolu lay jóge fa la mu leen di fayee fa lay jóge ak la yi dagg din ko ci mbuusam kon ba tey daanaka bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma gi lekk na ma bukki bi lekk rek la waaye yow yàgg yàgg dañ lay lekk yow Afrique yow dañ lay lekk rek bu la tilli gi bu la tilli bu la bukki bi lekk la waaye yow doo mucc ci lekk nda boo muccee boo muccee ci France dundale union soviétique dina la dunde ndax amoo doole jàngaloo so sa askan da ngaa tardé yow doomu Afrique loolu moo tax waa ji dem ca Wagner dem na ca Wagner ya Wagner ya yónnee nañu juróom-ñetti téeméer xaw ma ak lu topp ak fanweer ci ay ci ay ci ay ci ay ay experts soldats yoo xam ne dañuy jàngale guerre ñu ñëw Mali ne dañ leen di entraîner teg leen ci yoon jaay nañu leen ay armes te armes yooyu arme soviétique la te ñoo leen di entraîner ci naka la ñuy doxalee armes yi loolu la riisi lay bi muy indi gaañi France ne ko du ci dal mukk ci àddina kii nga xam ne ba mu juddoo ba léegi maa ko féetewoo di ko nax guddi ak bëccëg nga bëgg ko yee du yow doo ko bàyyi mu yow wacc ko man rek ma di ko nax ñu seeti defuma loolu il faut ma ñëw jàppalee ko ah ñu seeti na moom Union soviétique du fi nekk mu nekk fi ah léegi leen mooy pexe day dóor Union soviétique ah déedéet Union soviétique moom ko bu ko France dóor si ko dolli <laughs> xam moom lay doxee France moom dañ koy raaf mu ne kaay xam ma dem sama maam yi bu ma demee <laughs> moo ma waxtaan ak ñoom léegi yéen ñi nga xam ne yéen yéen waa CEDEAO wëral leen ma ko ndomba kapp bu dara dugg bu dara génn waaw sama yoon nag ci li leen Mali daan jëriñ yow ay quatre vingt ay trois cent nangam milliards nga daan jëlee ci Mali par at ci affaire commerce ak wàcce marchandise ak jàlloo leeg douane ak yooyu waaye nag da koy ñàkk waaw da nga koy ñàkk su ma naree ñàkk Mali yow sa intérêt boobu da koy ñàkk bokk gi da koy dagg waaw ah ñoo bokkoon ñoo bokkoon empire di Ghana sama yoon nekku ci ñoo bokkoon empire di Soudan soo sama yoon nekku ci waaw sama yoon nekku ci ñoo bokkoon fédération di Mali soo sama yoon ci waaw toppal fële daggal mbokk gi maa yow nag bokkunoo dara man maa nga ci Europe yaa ngi ci Afrique mais sama intérêt ci Mali su ma ko naree ñàkk yow Sénégal di nga dagg sa mbokk gi nga bokkoon ak Mali te empire di Ghana di nga dagg mbokk nga bokkal ak Mali ci empire du Soudan di nga dagg mbokk nga bokkal ak Mali ci fédération di Mali di nga dog ak Mali complètement ñàkk bépp intérêt bu daan génne Mali dugg ci yow complètement feek Mali nangu wut ma war ko di ko dañal nee ko dama xaar maa gi Mali nanguwul sëgg ma war ko di ko dañal yow moom dootoo jariñoo Mali Mali dootu la jariñoo bu fa sénégalais jaarati malien bu mu duggati sénégal watey sénégalais yi ca mali nañ fa toog bu ñibbi si ak sëfoor si watey sénégal nekk sénégal nañ fa bu ñibbi ak sëfoor si bu kenn bougé nee leen teg du ngeen am jàmm mali du am jàmm fekk france amul li mu bëgg lu france bëgg di rette mali aw nag ni muy sénégal def ko aw nag loolu france wax na ko sénégal sénégal nangu na wax na ko ñoom ay Togo ay ñoom ay Burkina Faso ay ay ñoom api jaxan ñoom ñëpp nangu nañ euh, Guinée nee moom du ko def waaw Guinée moom xam nga foofa moom moo fa dëkk dañ koo taal ca Gabon moom ci ñoom ay révolutionnaire lañ nee na moom du ko def waaw Mauritanie bokkul bu ci bokk it génn nañ Algérie moom tëjul frontière am ak moom ma nga lëkkoog Union soviétique ak Turquie ak tëjul digganteem ak Mali léegi Sénégal Guinée tëjul digganteem ak Mali Sénégal tëj seen diggante ak Burkina Faso tëj na seen diggante ak Côte d'Ivoire ak Niger ñooñu ñoo war a tëj seen diggante ak Mali pour lan pour ñu tëj Mali kaso di ko xiifal ak maral di sonnal ak njabootam ba bis bu muy nangoo sëgg ñu war ko mu tàlli ñereet nangoo bàyyi mboolem luy wërsëg wu nekk ci suufas Mali France roñ ko yóbbu ndax mooy suñu njaati gi loolu mënut a am nag nu boole nu tàggale Mali ak joñ alal léegi lan mooy position soldat bi ci Mali soldat bi ci Mali am na position bu mu jël position bi mu jël mooy dafa dem àndi ak Corée du Nord capitale ba tudd Pyongyang Corée du Nord nag dafa am sawaarix abiratil qaaraat am sawaarix balistiya am xanaabil nawawiya am xanaabil këhru maxnatisi maxnatisiya <laughs> maanaam Corée du Nord moom dafa am ay missile continental am ay missile balistique am ay bombe atomique am ay bombe këhru maxnatisiya xanaa maanaam maanaam xanaabil këhru maxnatisiya mënu mënu ko wax ci arab ci tubaab ci arab laa ko mën a wax bombe këhru maxnatisiya mooy bombe boo xam ne tey bu ñu bu tiimoon euh, Washington kalaate ci kaw jaw ji day delloo Washington comme ba fi ñoom maam Adama ak Awa nekkee day nga jaxe lépp lu fa doom aadama mos na trouvé ci njëriñ mu nekk ci luy dox ci technologie du radar bu doon dox ci kaw asamaan di jokkalanteeg bi ci suuf du caagee nag machine bu newoon ci suuf bu doxee courant lépp lay détruire nit ñi daal day mel ni ba fi maam Adama nekkee daal di gën a gàtt pour mu pour mu jeex. oto dootu ko amati buy daw machine du tàkkati ko loolu mooy kon kon bu la këru maxnaatisiya te loolu waa ji waa ji Pyongyang am na ko te Pyongyang moomu euh, Kim Jong Un mi nga xam ne moom moo il Pyongyang moom nee na Mali danaa la dimbale ci armement dinaa la dimbale ci soldaar ak xeex bul ragal taxawal ni këcc yónnee ko juróom benni hélicoptère de guerre ne ko dinaa la dimbale ci armement danaa leen dimbale ci ay soldat bu guerre bul ragal dara maay sa maay sa maay sa grand frère bul bouger waaw yaa ngi dégg union soviétique ne ko maay nijaay maay nijaay Corée du Nord maa ngi yow a ànd bul ragal bul bouger Wagner yaa ngi noonu di xaar sama camp bu mag baa nga ci Algérie te yaag moom yéen diggaloo digaloo bu la France ak Sénégal bëggee fontoo rek xaar ma maa ngi ñëw su ma dikkee ñu xam ne am nga am nga am nga am am nga mag ji leen dimbale Chine ne ca wet ga man maay doomi bàjjeni si maay maay doomi bàjjeni maay doomi bàjjeni riisi waaw te maa ngi ci wet gi te man na maa lem Afrique juróom-ñaari yoon <laughs> ci mbooloo su africain yëpp dee woon ba jeex danaa sol Afrique ay nit ba mu fees ma defee lu dëkk samam réew bul ragal bul tiit am naa armée am naa doole waaw bu la France bëggee napp ànd ak ak ak CEDEAO manque ci wet Turquie moom it ma ngi ci wet ga ah man kat na leen wóor ne ca jamono yu njëkk yi ba fi lislaam nekkee te sultan dawla Usmaan yéen nekk fi Mali di foon boot leen yéen yéen yéen empire bi ah, empire Soudan bi kon nag bu fekkee ni diine nu boole woon ak ngor ak àndandoo ci jàmm ak salaam ñu dem ba yàlla def ma daanu amatuma doole man mi leen bootoon amatuma mbootu ngeen tasaaroo ñu di leen ñi di leen niiwal doole léegi sukkandiku naa ba jot taxaw duma leen mën a bàyyee noonu kenn ku ma seen nga nekk ci suuf naa la sànni sama loxo jox yëkkati la man it dinaa la dimbale yow Mali kon léegi Mali am na Corée du Nord Mali am Mali am na am na am na Russie Mali am na Chine Mali am na Turquie te Mali am na am na am am na Algérie waaw te Mali du ko bàyyi te te Guinée du ko bàyyi bàyyi ak loxo neen kon waa ji am na lu mu yaakaar lu xew nag ci biir am na lu mooy mën a wax am loo xam ne du ma ko mën a wax ndax ka ñuy wax Donald Trump ca Amérique ka ñuy wax Donald Trump ca Amérique moom moo jaay waa Mali papier yi nga xam ne moom la ñu war pour defar seen beneen xaalis papier bañ ko roñee ña ko yóbbul Vladimir Poutine ca ca ca ca ca ca Russie Vladimir Poutine yónnee na ko Corée du Nord ca Pyongyang ca kañuy wax kiim Jong Yum kiim Jong Yum moom moo moolal Mali xaalis bi nga xam ne moom la na remplacé seen xaalis bi ñu bokk ak moom ba paquet yi ñëw ne biir Mali cargo avion yaa ngi naaw di ko wàcce waa ji bu ñu waxee bu ñu moytuwulee dana nu bàyyeeg suñu franc euh, suñu xaalisum njaam bii nga xam ne moom lañu France gàll te ne du jóg suñu loxo ba mukk dem uti xaalisum boppam te bu ko defee Guinée Guinée dana ko ca fekk loolu jar naa sàmm te loolu ñoom ñi ngi koy jim ci biir yooyu nag waa ji na bu ma France mënut bàyyi ci jàmm ma bàyyi langue français jàngi anglais def comme Paul Kagame ndax bind bind dong la wax wax dong la te tubaab dong du mooy bind di làkk ci àddina kon waa moom mi ngi armé woo nara bàyyi xaalis bi ngeen bokk yéen ak moom benn waa ji mi ngi armé woo nar a bàyyi làkk bi ngeen bokkandoo di jàng ak moom waa ji mi ngi armé woo def sàmbam njorondaay dem ak boppam bàyyi leen ak seen ak Afrique ngeen ci seen buumi njaam yi nga xam ne du dagg ba lu may dañ koy ràbb bis bu nekk waaw loolu mooy li nga xam ne ci gàttal ndax mënuma cee xuus lu bari mooy li nga xam ne moo yëngatu foofu ci biir Mali léegi nag am na leneen lu ñuy ruumandaat ma di ko dégg ñu ne xew ne fii ci géejug Sénégal loolu ñuy ruumandaat nee nañu dafa am bateau boo xam ne Ukraine la jóge sëf ay armée ñu jàpp ko ci géejug Sénégal waaw bateau boo xam ne ka moom wala compagnie ga ko moom Ukraine la dëkk loolu la ñu war a wax ndax bateau yi dañoo nekk ay jëfandikukaay ngir yenu ay bagages jaare ko ci géej di ko jàllawle ci duni suuf àddina bi di ñëw fii ci dunyaa gu mag gii di Afrique muy dun bu yaa di dem ca dun bu yaa bële ca Amérique muy beneen dun bu yaa ndax ndax ndax ndax ndax li ñuy wax li ñuy wax continent mooy dun bu yaa dun bu yàlla ndax wet gu nekk ndox féete na ko fa waaye daa yaa am na dun bu yaa bu tudd Europe am na dun bu yaa bu tudd Afrique am na dun bu yaa bu tudd Asie am na dun bu yaa bu tudd Amérique am na ab dun bu xaw a yaa bu tudd Australie waaye taxu koo yaa juróomi dun yooyu mooy yi nga xam ne dun yi ñu xam le te ay nit dëkk fi mu am ay borom ñu organiser ko ay nit nekk fa léegi nag bato yi ci diggante dun yaa yooyu dun yaa yooyu la xuus di jëlee ci biir dun di yóbbu ca bële jëlee ca biir dun yóbbu ca bële jëlee ci biir dun yóbbu ca bële ab dun nag rek mooy comme gore waaye dun bu yaa mooy comme Afrique ndax Afrique ndox wër na ko waaye daa yaa diggante boobu borom bato yi dañuy jël ay bato di daw ci diggante dun yooyu di yóbbu ay marchandises ñoom ay sëfkër lañ rek armée boobu armée yooyu mënoon nga koo fekk ci bate bu dëkk siin te siin defaru ko man nga ko fekk tax ci bateau bu dëkk Sénégal bu fekkoon sénégalais am nañu ay compagnie yor ay bateau yu mag te Sénégal defaru ko ña defar seeni armée di ko jàllawle dañu luyee bato boo xam ne compagnie bu ko moom Ukraine la jógee loolu noonu la demee bato bu dogee Ukraine def ay armée lañ jàpp ci géeju Sénégal loolu lañ wax waaye du waaye bu kenn wax ne waa Ukraine ñoo jël ay armée doon ko trafiqué waa Sénégal jàpp déedéet loolu moom bu kenn xalaat lu ca topp mooy activiste yi lu nekk maa ngi dégg ñoo ngi ko ci wax lu nekk maa koy dégg ñoo ngi ko ci wax ñuy dëkkal ku nekk fenn boo demee ñii la demee ñaa la waaye ñi mu doon moom kenn xamu ko waaye activiste yi moom maa ngi leen di laaye biir ndax ku ma ci motul bàyyi mat naa la mag waaye bu dul waajooju di wax te dëkk Amérique ku ci saa moroom nekku ci man nag du bopp activiste ab ab ab jàngkatu diine laa waaye li ma leen di laaye biir mooy activiste yi yi nekk ci Afrique noire pare leen na yéen eh, France mi ngi ci seeni yeel ngeen xam ko France mi ngi ci seeni yeel koo xam France mi ngi ci seeni bëgg mooy jeunesse boo xam ne dañuy ràpp di julu di raste di tox di góor jigéenu def ay bandi def nit ñi tekkiwul dara xalaatu ñoo jàng ngir ami diplôme xalaatu ñoo defari roplaan xalaatu ñoo defari ay bateau xalaatu ñoo defar ay avion melu ñu ni jeunesse ba ca Turquie nga xam ne ñoom ca loolu lañ jëmale seen bopp mooy lii tubaab bi def bala ñoo dee dañ koo def jeunesse bi France bëgg mooy jeunesse bi roy Bob marle jeunesse bi roy Otis Redding bi roy Boris Pio jeunesse bi roy Tiken Jaffa Kolley bi roy Alpha roy Alpha bu mel noonu moom la France bëgg fii ci Afrique léegi dem geen ba xam ne loolu arrangé wu leen ñii ci bitim réew di jàng ñii ngi ci bitim réew di wut xaalis ñii ngi ci ah, ñu ngi ci biir Afrique laxasu ne Afrique dañ koy tàqale ku njaam te France danañu bàyyi suñu alal ak sunu ak sunu bopp nu dem France mi ngi doon jaaree ci président africain yi at mu nekk mu woo leen ngeen wuy jikko président africain yi mu tëral lim bëgg ci nun buñ dikkee doxal ko France daan na jóge France ñëw ci am réew dugg fa formé fa ab groupement jeunesse jeunesse booba di sëmbale ba daaneel président comme ni ñu defoon Abdoulaye Wade fii ndax am na groupe bu fi nekkoon boo xam ne ministère ci ministère yi français yi am na bu jóge ci dëkkam ñëw fii dajeeg ñoom Parcelles Assainies wax ak ñoom dem te jaarul ci Abdoulaye Wade te ministre français la te loola bu ko Boubacar Sall yónnee am ministre mu dugg France te te te te këyit yóbbu ko fa la ko fay génne du ko wax mbaa ko sobalay ba ñu leen ngir di daaneeli nguur booba déggowoon ngeen ak ñoom léegi dem ngeen ba ne ñun France dootuñu utiliser pour daaneel nguur nun nooy jël jël suñu initiative bu bopp ngir avancer suñu continent loolu ngeen nekk de dëgg la waaye seentu leen ni balaa France bàyyi dina taal rébellion def leen ni mu def senis arab ndax senis arab bi di waa waa Syrie senis arab bi di waa Yaman senis arab bi di waa euh, euh, Égypte ba ba mu wirii ni ba mu wirii ni eh, tubaab yi xamee ne gone yi jàng nañ te fii ñu nekkoon di fa jaarale seen i bàyyi duñ fi jaar dañ fa taalab guerre bala ñoo bàyyi guerre ba jeunesse ba ñoo yefatale di xeex ñoom ñëpp ay dee ba jeex ba màggatee de soñ soñjaataat lu bees mën a tënkaat réew ya di ko womatal seen bopp yéen France da leen a woo ren bàyyi seen président yi ngeen dem France maa ngi ci gis gone gu jigéen gu dëjërle goo xam ne daa jàkkaarloog Macron di ko làkk ba Macron dafa dara gi min mujj di xoole booba mi ngi doon seet ba xam naka lay laver seen cerveau yi ba delloo leen ci cosaan ngeen nanga woomatu si gannaaw France comme ni seen bàyyi seen maa ngi def lànk ngeen yéen seen Afrique France mi ngi ci seeni yeel bu yeboo ngeen fu ngeen préparé ko nag xawma da leen di trafiquer ay armée dugal ko fi taal fi ab rébellion ngeen dee ci ba jeex xawma naka lay def waaye yéen moom di ngeen delluwaat womatu ni seen bàyyi yeeg seen maam yi mënu leen ko def bu ngeen jëlul seeni proposition normale danañ leen taalal seen réew yi bu ko defee France jaxasoo ci biir di rëbb gaa yi par benn di rey di rëbb gaa yi par benn di rey balaa mborgo mborgo mee dee ba jeex fekk dirigeant yépp tiré de lutte rey nañu leen bu ko defee yambar yi ya nga des biir Afrique ñu jël si waat di lëmbe comme nañ doon def il faut ngeen ànd ak seen xel il faut ngeen di xalaat ba loolu am na benn dégât bu am Sénégal yéen xamuleen ko dégât bi am Sénégal mooy dégg naa sama mbokkam taalibe muy wax ci wal fajri wax ne dañuy bañ góor jigéen ak yu demee noonu ne dañ koy xeex ñu ne ko lu tax jaarewu ko ci président bi mu ne président bi dañ ko war a protéger kon xeexum góor jigéen danger la waaw kuy kuy protéger sa président bi réew bañ koo duggal ci li koy indil ay problème lu tax ngay jël sa xalifa généraux réew nga di duggal ci li di ay problème xarum sarax mi daal sëriñ si la ñoom lañu war a présenté ci kanam occidentaux yi ñuy xeex bu ñu arrivé ba eggal ñoom duñ falu duñ faluwaate woo bàyyi gone ya leen doon influence ñooy mujj toog ca place falookaay ya ndax xalifa général yi duñ falu euh, bu fekkee gañe nañu bu ñu gañe wut seen bakkan xëj na ci ana Osama Ben Laden tubaab rey na ko lu ci mujj France daal di xaddeen ana imam Moussa Sadir ma njëkkoon te nekkoon Liban doon kaas fëkk nañ ko yóbbu ba bii kenn gisatu ko dañoo fëkk Sëriñ Tuubaa mu del si waaye Moussa Sadar bañ ko fëkkee moom daa sarale del si waatul abo mus ab sarxaaw anamu gaa yi rëy ñi ko Babacar diine lu bëgg a samp diine di jàkkaarloog tubaab bi moom tubaab yi rey dong lañ ci xam xamuñ ci leneen moo xam posé na dee moo xam rendi la dee moo xam fekkale ci jumaa ngay jiite ñu fekkale ci sa semaine bar jam la paaka nga dee moo xam waaye moom kilifa diine kuy taxawal islaam vrai te nëbbutu wuti rey doo nga la ci tubaab yi xam loolu moom na leen leer kon ku ci amati sa kilifa diine te am sa guerre taxawal nga geeral ko sa bopp te bu ko jiital ci front kilifa diine kenn du ko jiital ci front ndax day kenn koo xam ne bopp la te buñ ko daggee jëmu jépp day tasaaroo kon bu leen jiitale ci kilifa diine yi ci front su fekkee ni dañoo bëgg a xeex te li ñuy xeex dëgg la ci nun bàyyi kaay gañe naa daal moo gën a wóor bàyyi kaay dem xeexali ma ndax buñ duma bàyyi ñu waxaale su la waaw dañ lay duma gadaw gadaw nëbbutu ji ca bàyyi waaye nga jiital bàyyi muy xeex bu duma bàyyi te réew mi tas di xelif seen roy bu ngeen leen xiiree ci ñu jàkkaarloo ak Occident bi ci seen jikko yu bon yi bëgg a samp ci réew mi bu xalifi généraux yi ésequé yéen ñi leen jiitaloon lu ngeen di def te ngeen a xeex seen xeex bi rek te buñ leen dumaa xalifa yi wax ci bu ngeen di xeex yi dem leen tàggoo ji dañoo ngi xeex bu jàmm amee xëyru déggee neen daw daw si seen wallunu waaw bu leen leen jiital ci xeex bi loolu du yoon mas ngeen a gis ab chef état major armée bu gàddu matraise ne ca kanam gi xeex lan moo tax ngeen di jiital sëriñ si ci combat bi te xam ne ñoom ñoo suñuy ndey ñoo suñuy baay ñoo suñuy tiga ñoo suñuy gétt bu nu demee xeexi gañe dikk taxaw bàkku bu nu xeexee ñu duma ñu ñu daw dikk man de loolu mooy sama xalaat ci côté boobu senes nag bi ne ci réew mi li ma leen di xelal mooy boot leen seenam nopp te xam ne bu ngeen naree te France France dina taal Afrique wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu foofu la ñuy dem ci la sama ndax xibaar bari na buñ dellusi waatee nag danañ leeral diggante Ukraine Ukraine ak Union soviétique ak Turquie ndax bari na ay xew-xew yu fa xew yoo xam ne yëgu leen ko ak euh, Yaman digganteem ak Arabiyatu Saoudia ak euh, ak ndax coalition Imarat ak Arabiyatu Saoudia bi Soudan ci la bokkoon ah dee njiime it ci la bëggoon a bokk waaw dee njiime ci la bëggoon a bokk waaw signalé na ne dina yóbbu soldaar dee njiime waaw bëggoon ma nag nu dee njiime mu jóge soldaaram naa eh, wala ci njool tooba dee njiime xam nga mooy ñay moo am Afrique njool tooba mooy giléem moo am moo dee njiime bëggoon naa wala ci njool tooba eh, waaye xaw ma lu tax dee jéeme mujj gi daal mu xaw mu xaw a daal boo demee daal daa dëpp mbaa boog daa wala ci nëbbatu waaye moom kenn médiatisé wu ko waaye ca démarré ba noonu naa dee jéeme boo ci diggee ci ngay des geeru yaman du jox mukk ndax yaman a jur Arabie Saoudite te te nijaay du nangu seen baat ba duma ko loolu moom lu ci lu ne jaral na leen ko waaye eh, dinañ ci ñëw ba mu gën a leer ndax ba léegi guerre ba ma ngay continuer Arabie Saoudite mi ngi bombardé ànd ak Imaaraat yaman na ngay dóori missile ci Arabie Saoudite di lakk ay ay ay ay ay ay ay ay ay léegi loola sax yëmatu ca léegi yaman dóor na ay missile ca Imaaraat dóor na ca poor ba lakk na fa ay ay ay citerne essence yàq na fa alal taal na fa ay magasin dóor na feneen fu dul ba it yàq na fa te da leen koo waxoon avant mu koy def ba mu dóoree sax reyaale na fa ñaari indo ak benn pakistanais nee nañu leenoon nag waxoon nañ leen bu yàgg ne béréb sàngam ca imaaraat danañ ko bombardé bu leen fa dem lan moo tax waa imaaraat demuñu fa yebal fa ay étranger ba étranger ya dee ca loolu lépp danañ ko leeral ci yaatal bu ñu dikkaat yi waaye daal mbir mi daal doy na waar ndax daal li tax Saoudia bu yaman sànnee missile cim réewam mu mu mu kar misil ba te yaman na nga làqute ca ginnaaw ar maanaam so nga làqute ca ginnaaw arabi saudite mel ni picc mu tong ci ginnaaw ak ñay ne ca gannaaw arabi saudite yaman féete nii imaaraat féete nële arabi saudite dox ci diggante bi yaman mën a sànni misil tëb arabi saudite gépp ba mu jax dox junni kilomètre ak juróomi téeméeri kilomètre jam ca imaaraat te nee na leen bëgguma jam ci biir seen taaxi weer yi ku dëkk ci biir dam saan sa sànnente ay xeer ku dëkk ci biteel doo sànnente ay xeer ndax buñ ko tojee ci biti kay fanaan te ñoom seen dëkk boobu tax yépp ay armée nga ki weer la yamal nag jox na leen avertissement ne leen duur naa ci poor bi duur naa ci usine pétrole ya bu ma dikkaatee ci hôtel yi ak ak ak ak ak seen taax yu gudd yi laay dóor te taax yooyu moom ay weer yi kese la buñ ci dóoree bomb yàlla nañ ci yàlla musal yàlla na yàlla génne jullit ñi ci dagaa bi ñu nekk te delloo si ci jàmm incha allah buñ ñëwaatee danañ wax ak yéen ci géeru Arabie Saoudite ak yow ak yaman ak imaraat ak la ci xew ndax dañu ne yaman ndey ji ko jàppale ba tax mu bëgg ñëw te moo di Iran waaye foofu yi dafa am lu fi nekk léegi nag maa ngi ci géographiquement bàyyi naa ci histoire ma li fi nekk mooy diggante Iran ak Yaman ni ma leen ko mën a misaale dafa mel ni Iran dafa jàpp kenn nit njett ko njettal xirandi jàpp ci xoor boli gi munta noyi mu mu di ko teqali pour bëgg cee génn Yaman ñëw jàpp ci bi tànk jàpp ci bii tànk di xëcc waa ji ñu ngi ko njett njettal xirandi mu naan xiir munta noyi léegi yaman ñëw jàpp bi biir tànk jàpp ci tànk di xëcc loolu feeg leeralu ba ko du ngeen ko xam dafa am lu ñuy wax médiyax dañuy wax dafa am lu ñuy wax xalijul farisi am fa lu ñuy wax médiyax urmus mu am fii baabul mandab ak baharul ahmar baabul mandab ak baharul ahmar ñaari place lañuy ñuy yëq yoo xam ne bu ko yaman tëjee foofu dara duuti fi jaar kon Europe ak ñëpp problème day tëju moo ñaari tànk yi baabul mandab ak baharul ahmar léegi mu am fu ñuy wax Midyax Urmus mooy ci Iran foofa la bu liggéey ba foofa itam bu ko Iran tëjee la ko jàpp Asie jëm Europe day tëju dootuñu dootuñu mën a tee dootuñu mën a tee jàllale dara ñaari place yooyu nga xam ne ci la ñaari réew yooyu taxaw kii ŋàbb ci baat bi kii kii xoj baat bi kii ñaaw ŋàbb ñaari yeel yi kii njett njettal xiral jàpp ci wëq yi moo tax tubaab yi mënu ñoo def benn kàttan bu ñu a def ci maasale yaman yaman buñ ko bëggee maasale dina tëj babul mandab dana tëj Meruz buñ ko bëggee maasale dana tëj eh, médiax urmus te kon àddina bi yëpp tëjee dara du dem dara du dikk foofu la ñaari réew yooyu jàpp àddina moo tax kenn mënul ci ñoom dara su ma dellu si waatee danaa ko leeral incha allah